Notre pays, le Sénégal, à la croisée des chemins, vit un tournant important de son histoire politique. Face à cette situation, des partis politiques, mouvements et personnalités politiques d'obédience libérale, profondément attachés aux valeurs libérales et démocratiques, fidèles aux principes de bonne gouvernance et de respect des institutions de la République, déterminés à assumer pleinement le rôle dans la défense et le perfectionnement de l'état de droit, totalement engagés pour l'organisation d'une élection libre, transparente, démocratique et inclusive, ont décidé de porter sur les fonds baptismaux un cadre de concertation des libéraux et démocrates du Sénégal. Ce cadre a pour objet de sauvegarder les acquis de près d'un demi-siècle de lutte ayant permis au Sénégal d'emprunter une nouvelle trajectoire prometteuse faite de progrès démocratiques et d'émergence économique et sociale. Ainsi, conformément aux valeurs et principes de base du libéralisme, ce cadre encourage et soutient les initiatives en faveur d'un dialogue permanent dans le respect de la loi et de la préservation des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Face aux nouvelles menaces multiformes, induites entre autres par le populisme et le fondamentalisme religieux, qui pèse gravement sur les traditions de tolérance œcuménique et le destin de ce pays, des libéraux du Sénégal qui ont versé sang et sueur dans les batailles de conquête démocratique ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de pérenniser cette trajectoire de progrès insufflée par la gestion libérale de près d'un quart de siècle. Pour nous, l'avenir du Sénégal ne peut se construire de façon durable dans la prospérité et la solidarité qu'avec une famille libérale réunifiée, capable de continuer l'œuvre de construction nationale. L'ambition de ce cadre est de travailler à la réalisation de l'unité de la famille libérale, dont le père fondateur en Afrique et au Sénégal se trouve être le président Abdoulaye Wade, à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est pourquoi le cadre de concertation des libéraux et démocrates du Sénégal lance un appel au rassemblement de tous les partis, mouvements ou personnalités d'obédience libérale du Sénégal et les invite tous à se démarquer de toutes les formes de violence et à renforcer leur dynamique de fraternité agissante dans l'excellence pour préserver, avec patriotisme et responsabilité, les acquis légués par les bâtisseurs de la nation sénégalaise. Le cadre envisage la tenue d'un séminaire dans les meilleurs délais pour partager avec tous les acteurs concernés les missions qui lui sont assignées mbooloo mi ngeen fi gis tey ñu teew fii ñu nekk ay kilifa jiite ay parti politique jiite ay mouvement politique wala ñu nekk ay personnalité yu bokk ci famille libérale wala ñu teewal fii ay kilifa ku demee ne que euh, président Macky Sall nga xam ne ministre Faye moo ko fi teewal wala président Idrissa Seck nga xam ne ministre euh, madame Mariétou Dieng moo fi teewal ku mel ne président Pape Diop nga xam ne Moussa Diakhaté moo fi teewal wala président Ahmed Samuel Sarr nga xam ne moo du mbay moo fi teewal ak Khadim Diouf ñi ci des ñëpp. ñu ci bari dañu jiite ay parti jiite ay mouvement lim leen dina jafe mais ñun ñëpp li ñu bokk mooy benn euh, wirdu politique muy libéralisme ñu gis nag ne ñi bokk ci njaboot googu dañu xaw a tasaaroo tuuti kenn ku nekk at yu bari yaa ngi ci dara topp sa yoonu bopp gaa kenn ku nekk ci ñu yàlla mën na cee dimbale ci yoon wi nga xam ne moom nga jaar kenn ku nekk ci ñun mu ngi sant yàlla waaye ñu dem ba gis ne booloo mooy doole te booloo yi tamit mooy tax ñu gën a mën a wéyal suñuy principe ak suñuy valeur ndax kenn tabliwul ne Sénégal su defaroo wala boog Sénégal bu ñu ko dee tudd gestion libérale moo tax président Abdoulaye Wade tàmbali ko président Macky Sall continué ko euh, foofu ñu toll nag ñu gis ni réew mi di doxe moo tax moo tax ñu bëgg wéer loolu mais ñu xam ne wéer loolu ci xajaloo wéer loolu te boolewuñu suñu doole dina jafe loolu moo tax ñu taxawal benn cadre cadre de concertation des libéraux de démocrates cadre boobu nag bu ñu wañi woon déjà parti yi nga xam ne ñoo ko ëmb frère Moussa Sy limal na leen ko léegi bari nañ trop mais dañuy xamal ñëpp ne cadre bi ubbeeku na ci ñëpp képp kuy personnalité libérale képp ku yore mouvement d'obédience libérale wala parti d'obédience libérale mën nga ñëw nga adhérer ci li nga xam ne mooy cadre bi tey nag xañ ñi fi nekk ñii ñoom ñoo sos ñoom ñoo tàmbali ñoom ñoo sos yëf yi wante yëf yi ubbil nañ ko ñëpp te ñu ngi woo ñëpp ngir ñu ñëw wuy si ñu ci lii nga xam ne moom lañu ñu sàmm li nga xam ne nag wax nañ ko léegi mooy bu ñu demee ba ci kanam daañu def benn séminaire d'ailleurs frère euh, Babacar Gaye moom lañu sas pour mu xalaat ci terme de référence séminaire boobu buñ ca jógee nag du ñàkk suñ ci waxtaanee ba d'accord ci xañ na cadre bii ñu wutal ko tur xañ na cadre bi ñu structuré ko xañ na cadre bii ñu tëral ay principes yu nga xam ne moo koy doxal mais li am solo mooy euh, lépp lu nga xam ne état de droit la xam xamoon nag ne waa euh, bon lépp lu nga xam ne démocratie la liberté la état de droit la élection transparente transparente la tolérance la cadre bi daf koy promouvoir lépp lu nga xam ne nag fondamentalisme fondamentalisme religieux la wala xajaloo euh, walla populisme cadre bi daf koy xeex donc suñuy valeur la ñu am suñuy valeur fonk république moo ci jiitu fonk état de droit moo ci jiitu fonk saa yi ci waree demee ñu dem ci élection yi pour kenn ku nekk soo dee takkaat ndombo tànk peuple sénégalais takkal la ko te mu ànd ci jàmm ànd ci salaam nekk débat d'idées nekk débat contradictoire kenn ku nekk mën a bàyyi sa morom wax li mu xalaat donte yow moom bokk leen bokk leen gis-gis donc loolu mooy li nga xam ne mooy mooy cadre bi boole famille libérale famille libérale bi nekk ci kujje gi ak famille libéral bi nekk ci mouvance présidentielle amul benn parti libéral moo xam na nga bokk ci kujje gi wala nga bokk ci mouvance présidentielle te mbir mi soxlu la moo tax bi ñu ko limee léegi gis ngeen fi ay parti politique yi mouvement yu bokk tey ci kujje gi am seen candidat gis ngeen fi ñu bokk ci mouvance présidentielle bi tamit am seen candidat waaye loolu jotewul ak dara ñun bëgg gi ñu bëgg boole suñu doole boole suñu bopp pour que libéralisme continuer di yore réew mi ba ca kanama kanama kanam libéralisme nag kenn mënu ko tudd Sénégal wala Afrique te doo tudd président Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo ko fi indi 1974 te boobaak léegi tamit moo ko yaatal ci biir Afrique fu baree bari tamit moom moo fa yóbbu moo tax ñu koy rendre hommage te di ko ñaanal yàlla yokku fanam yokk wéram yaakaar naa daal ci gàttal euh, chers frères et sœurs chers camarades chers ñi fi nekk ñëpp loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen bëggoon tënkal ci lii nga xam ne moom la ñu taxawal tey